Yeah. mais auto jeunes yi warul dugg fii sant bul wax ma Pape Beye tey dina wax mi ngi sant mi ngi na ñëpp gërëm na ñëpp sant na ñëpp loolu wax nee na na ñëpp gërëm na ñëpp